j'aurais pu la même chose mais dama bëgg a wax ni moom dafa wax ci njëlbéenu waxam sànq entre quatre-vingt-seize ak léegi am na ay jéego yu def man dama fàttaliku suma premier réunion conseil municipal genn góor dafa wax ni li ngeen di wax ci xaalis bi warul tëddee noonu nañ ñu séddale ku nekk dem ruqam rek xool naka la ciy def donc am na évolution te évolution boobu dafay yokk il faudrait pour man ñu renforcer ressources humaines yi ville de Dakar njuga duma bàyyi ma wax lu nekkul dëgg nous sommes cent cent conseillers municipaux mais wér nañu wér ni bu ñu ñëwee ci débat d'orientation budgétaire ñay indi débat bu sérieux bu profond un débat sur naka la mairie war a doxee pour que dëkk bii ñu ne wàllu ndox wàllu énergie wàllu mobilité wàllu transport wàllu mbalit wàllu assainissement ki ne même pas une compétence transférée mais kii est un besoin réel lan lañ ci war a defal population bi mënoo ci dépasser juróomi orateur mën nga dem ci conseil municipaux yu bari nelaw yeewu wote la loolu ci nañu tëggee taxi yi mhm. am na ay manquement parce que ci conseil municipal buy dox normalement ñeenti réunion nga war a def ci at mi séance bu ne ñetti weer nga ñuy woote réunion ñetti weer boo ciy woote réunion ci pour xool mbir ñi ni mu war a doxee mbir yi mën na bañ a dox mhm. ni ñuy tënkee ordre bi ak fañ koy takkee dana tax ni yow conseiller bi doo am sax impact ci doxalinu sa ville lu bari na sa ville di doxee ci réseaux sociaux yi nga koy yëgee. Mm-hmm. wala par uy dire après mais or taxi yi dafa leer programme yi fi doon tënk sànq ku ne wax nga ne naka ngay fexe ba nit ñi la population nekk au cœur de l'action des territoires loolu c'est c'est les premiers articles de la loi sur la décentralisation 6 et 7 un 2 un titre sur la participation citoyenne mm-hmm. qui va jusqu'à codifier la participation des ASC et des organisations de développement communautaire or or loolu amul lu contrôle citoyen l'article sa def ko régler mais pour nga bind sa maire wax ko ni damaa bëgg xam lan la am à tes frais ay noon ngay yokk da ngay yokk sa bopp ay noon ce qu'on disait sur la fiscalité sur les deux façons ak l'article 281 mm-hmm. fiscalité bi gouvernement bi moo la koy jox wala mu jox la dotation mm-hmm. wala mu boolee ñaari jox la ko mais et sur le plan interne kersa boobu c'est biais yi nga xam ni nous les élus dañ koy am par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñooy cible ñoo war a fay impôt parce que fii ñu ne ñu ngi fay andi ñu ngi fay jëlee koom buy dellu ci ci ñoom mm-hmm. mais amul lenn lu ñuy jox collectivité bi nga xam ne fa la ñu ko samp loolu suñu code des collectivités locale daf ci am faiblesse. Mhm. pouvoir yi ñu concentré ci loxo maire dafa ëpp. pouvoir yi ñu concentré ci loxo bi dafa ëpp diriger ASC sax moo gën a jafe dirige maire parce que ASC di nga am ñu lay contradire ñu ñu lay andil contradiction ñu mhm. lay indi des position différentes mais maire yi da ngay togg yow ak sa groupe ba mu ñor nga soog ñu ko andil bureau municipal nga xam ni yéen juróom ñiy toog wala juróom benn presque ordre du jour bi dañ leen koy imposer waaw donc ngeen di wax bu too ngeen mhm. jox joxe green light ñu dem ñu dem conseil municipal mhm. où le conseiller n'a aucune possibilité ni taxi yi tëggaw mu changer ordre du jour bi mënoo dugal lu bees parce que am na arrêté bu codifié ordre du jour bi yow dara lu bees munoo ko da ngay toog rek ñu wax lever la main ceux qui votent ceux qui votent pas nga yëkkati mhm. sa loxo amoo influence réelle il faudrait que ci tëgginu ak ci formation wu yi ca tànnin ba ñu bàyyi tànn ki dàq mobiliser ci koñ bi ñu dàq ñu bàyyi tànn bàjjenu gox bi nga xam ne moom moo ëpp déedéet ci damay ñëw parce que dañuy évaluer mais mais léegi loolu ci critères yi man ñëwuma nu ñuy defaree liste mais globalement mhm. sooy évaluer décentralisation mhm. Sénégal mhm. nit ña koy doxal war nañu am formation ak profil même bu ñu jàngul école mais ñu xam lii ñu leen jox mooy lan lan la ñuy xaar ci c'est important alors Serigne Saliou euh, dañuy wax rek souvent lu jëm ci développement euh, décentralisation mais les questions de redevabilité et de transparence pour la gestion des collectivités locales am solo bu ñu ñëwee ci décentralisation. waaw mais loolu sax euh, sans pour autant dellusiwaat ci débat bu léegi bi. Mhm. dafa feeñ pendant campagne électorale bi. Mhm. parce que y' a de maires yoo xamante ni bu leen waxee venez faire votre bilan ñu si bëri. ils mhm. n'ont pas voulu. te bilan boo koy day def. cest dire en même temps aussi di nga sa bilan financier et citoyen bi dafa war a xam en réalité yow fa nga jógee ak fi nga xam ne fa la egsi maire yu bëri da loolu gisuma fi benn maire boo xam nangu na def def bilan gis nga décentralisation Sénégal lu tax mu métti foofu na wax na ko léegi c'est-à-dire ñun dañu am d'abord un problème d'organisation du territoire c'est-à-dire spatial parce que soo gisee par exemple tey ni nga xamante ne je prends rek l'exemple de Dakar mhm. je crois Mbacké évoqué na ko léegi ni ñu Dakar niñ ko niñ ko niñ ko balkanisé c'est-à-dire terri cest yi ku nekk dañ la dagal dagal dagal dagal dagal dagal en fonction bien sûr non seulement pour une bonne organisation du territoire mais c'est-à-dire dañu xooloon à ku ci nekk mm. euh, ku nekk loo yelool rek ñu jël ko dagg ko jox la mm. bon je pense que par exemple waa PDS bi ñu ñëwee au pouvoir que loolu sax dinañ ko corriger malheureusement ils ont laissé perdurer aussi toujours cette situation la boo jëlee par exemple tey le cas de de de de Guédiawaye day xool Guédiawaye Limamoulaye Ndiaye nga nga xool Thiaroye Djidah Kao nga xool ay Sam Notaire presque ay poche rek la communes yi da ngay xool presque ay poche la mhm. or tey boo xooloon foofu normalement bu ñu doon dégager commune yi foofu entre Pikine Guédiawaye bu ñu doon jël commune foofu warul dépasser au grand maximum trois ou quatre même Dakar gii tey bu bu ñu doon dem ba dem dem warul mën a dépasser. ñoo yegg ay war ñoo yegg dix neuf communes. Mhm. cinq fii doy na fi laa biir Dakar cinq cinq day doy na fi mais loolu nag tant que corrigé wuñ ko du ñu mën a am des collectivité quand même qui sont parce que du ñu am ay moyens c'est la raison pour laquelle boo xoolee tey on a de problème de sérieux problèmes d'aménagement mm-hmm. de de nos de parce que ku ci nekk tey da ngay foog ne il faut cantiniser tel coin tel coin tel coin fu nekk la cest xamuñu sax fi nga xam ne war nañ war fan lañ war a mën a samp cantine xamuñu mhm. fi nga xam ne war a samp cantine parce que jàpp nga ne cantine boobu soo ko defee tey bu subaa war mën a indil ay recette mhm. et c'est mhm. qui sont transférées mais les moyens financiers ne sont pas transférés on a toujours l'impression qu'on dans l'état jacobin état jacobin cest dire c'est l'état central toujours or état bi tey su bëggoon lu ko gën a féexal il faut que lu ci bëri da nga cest non seulement da ngay euh, compétence mais aussi il faut transférer les moyens wax nañ ko léegi. Mhm. li nga xam moom lañ jagleel collectivités locales yi mais loolu mënul collectif yi mën mënuñu def en plus on a aujourd'hui ce qu'on appelle la communisation universelle te man pour man jàpp naa loolu aussi c'est une tey il faut qu'on revienne à situation mhm. recorriger jàpp naa ne on boo diir dire tant que corrigé wuñu tey li nga xamante ne moo fi am déjà collectivités yi duñu am benn benn benn benn moyen mhm. njuga li mu wax léegi loolu c'est dem dégg naa ko euh, fréquemment pendant la campagne da ngay dégg kenn koo xamante ni su la waxee da ngay defee ne budget boo xamante ne li muy wax ça doit se chiffrer à des milliards mhm. alors que en réalité mënul am sax quatre cent millions de dans dans dans dans sa commune Mm-hmm. et loolu aussi moo taxoon ma ne débat bi ñu doon sàkku dafa baaxoon parce que bu nit bu ñëwee taxaw wax ne lii laa bëgg nit ñi ne ni lii laa fas yéene def mais dinañ ko laaj mooy foo koy jëlee il faut nga ne milliards yi tey fan nga mm-hmm. koy jëlee moom war na ko mën wax et puis gën a métti tey chaque fois dañ naan collectivité bi deful dara mais état bi en réalité moom moo koy appuyer. Mhm. parce que su fekkee ne état bi dafa transférer ay compétences ba pare war a dellusiwaat encore pour mën a jëlaat loolu pour kiyaat ko finalement je me dis il y a une incohérence même l' mhm. état. Mhm. te loolu nag c' est des kii yoo xam ne dañ ko war a corriger waat. tant que nag loolu corriger wuñ ko man jàpp naa ne nii mu demee nii nii nii avec cette balkanisation là vraiment de Dakar et aussi dans d' autres localités. tant que loolu ko. on n'aura jamais des territoires quand qui sont viables parce que y a de sérieux problèmes d'aménagement de notre de notre de notre euh, collectivité locale yoo xamante ne décentralisation bu limité lañ jàpp fii Sénégal Mouhamed acte trois boo xam ne compétence yi ñoom dañuy bàkkoo ne tey euh, waaw ah? wax nga dëgg casquette bi dimbale ñu ci ñun fi mu toll nii xoolal non non casquette casquette bi amul dara moom moom casquette bi amul dara déedéet amul dara amul yaa yaa rien du tout wane ko wane ko wane ko bu baax a baax wane ko bu baax wane ko bu baax a baax parce que ñun mhm. alors c'est très important c'est très important ñu xam ne arrêté nañ bi minuit jotee on continue notre débat c'est Noumbelane et on parle de l'actualité et l'actualité décentralisation tey dafa nekk au cœur de l'actualité ak acte trois de la décentralisation bi mais manque mooy nga xamante ne ñu ngi ko ci nemmeeku nag nga ko gisee. waaw xam nga la décentralisation correspond à un transfert de compétence du gouvernement central yàlla dogal na bu fii le président Abdoulaye Wade nekkee ci euh, deuxième gouvernement bu mu tëraloon. ñuy ñaanal suñu yaay yooyu yàlla na xippee àjjana yu gën a kawe daf ko dénkoon le ministère des collectivités locales aussi Ceewo Cissé Doucouré mm-hmm. kooku nekkoon aussi kàngam nekk boroom xam-xam mm-hmm. nekk koo xamante ni gisoon nañ rôle bu mu doon joué au sein de ce grand ministère ñu demaat ba ay deux mille su ma juumalee deux dix ou deux mille onze mu jël sa grand ministère de collectivités locale dénkoon ko Aminata taal def ko nag ministre d'État. Mhm. en ce moment là ñëpp xamoon nañ ni que les collectivités locales ak territoriales nekkoon na un grand ministère de souveraineté. Mhm. ñun les politique souvent dañu leen war a dañu war a teg de côté. jiital borom xam-xam yi ñoo xamante ni seen xam-xam day nàcc ci série domaine ñu jël leen confier leen yenn ministères yi waaye su dee par par loola ak far par exemple ne man mii kat ëllëg ak si biir su ma jëlee réew mi. su may def découpage foo quarante six départements yëpp ku ci nekk nga war a gis sa bopp dans un gouvernement loolu lay indi ay jafe-jafe gis nañ le président Abdoulaye Wade ba léegi je le cite en exemple je pense que loolu du propagande ndaxte jiite woon na réew mi mhm. gis nañ ni que toll am na benn tolluwaay boo xamante ne amoon na ko ba jëloon na Mamadou Diop jël lu tolloog un grand ministère confié ko ko defoon na ko aussi ak ñoom Alassane Alassane c'est ça defoon na ko aussi ak ñoom Alassane Diallo Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen yeneen i kilifa yu mag donc tey du ñu ne rek état nit su ci nekkee sooy roy doo naan lépp a bon mhm. donc euh, tey malchance nag bu ñu am mooy soo nekkee dans l'opposition ñu confier la une gestion mooy nga nekk maire opposition da ngay am ay jafe-jafe même ak tutelle bi mooy le sous-préfet soo ci ñëwee toog parce que tamit amoon naa mandat 2014 ba yaakaar naa jeexagul 23 janvier. Mhm. nekk naa conseil municipal. soo bokkee nag ci opposition da nga doon am ay jafe-jafe pour vraiment mën a ñëw jàllale sa budget soo nekkee un maire de l'opposition. ci loolu yëpp nag lu koy firi rek mooy li ma njëkk wax ci cappaandaw ji mooy le président de la république nee nañ kat jàll nañ ci loi bi. dafa war a nommer un nouveau premier ministre mhm. suy confier le ministère des collectivités locales maa koy ñaan encore une fois de plus en tant que citoyen sénégalais mu confier ko koo xamante ni wax dëgg neex yàlla su ñëwee dina indi lu ñuy woowee équilibre. Mhm. c'est très important euh, fan yi bu ñu yemee ci décentralisation rentrée des cours tribunaux dafa bëri lu ñu fa génnee ci ay litiges fonciers 2725 litiges fonciers yoo xam ne dem ci maison de justice ci collectivité locale yi la jógee parce que ci décentralisation lañu la ñu nekk ba tey euh, euh, loi bu soixante soixante quatre je parle sous votre contrôle ak euh, soixante quatre moom ñoom ñoo ko indi woon tey bu ñu yeggee ci ñi nga xam ne waaw bu bu fay su fekkee dama ci juum tey ñu yegg foo xamante ne li ñuy tudd ñiy jiite collectivité locale yi ci ay suuf yoo xamante dañu ko caxat-caxatee dafa bari lan mooy pexe bi waaw xam nga foofu dafa nekkoon piège sa 96 Euh, man dès 97 bokkoon naa si ñu doon wax ni nguur gi dafa nax les militants de la décentralisation j'étais encore très jeune euh, mais bi président Macky Sall ne damay nangu suuf si si maire yi dama ko ne ndokk parce que en réalité qu'est-ce qui se passe et ce qu'on a transféré c'est pas les domaines c'est la gestion et l'utilisation du domaine privé de l'État mm du domaine public et du domaine national utilisation et gestion maanaam boo soxlaa si domaine privé de l'État pour defar tali pour defar waa pour déclassifier une route def si dara pour defar euh, euh, stade walla tabax l'hôpital nga laaj état nga indi ay preuve nii daf da nga koy jublu fii ñu def ko wala da nga bëgg def habitat social nga indi ay preuve comme ni ko Mbaye Jacques Diop defee woon Amath Danso yàlla leen yàlla yërëm pour Rufisque 2 prix alléchant cinquante mille francs domaine privé de l'État bu dee domaine public kasaalika domaine public euh, naturel domaine public artificiel nga xool par rapport ak dayo bi par rapport ak projet bi par rapport euh, domaine maritime bi nii lu ne lañ siy def mhm. mais après mairie yi lañ ko jiin alors que bu mu si mënti doon muy ba si domaine national bi xam mairie yi ñoom lañ ko jox maire yi lañ ko jox ñu def si lu nekk nag dañuy xool ndax affectation ki ñu ko affecté pour tabax kër la. Mhm. wala pour tabax tabax projet économique wala projet social. ça mhm. dépend lu si mënti les services de l'urbanisme les services de l'État de façon globale waa mhm. impôts et domaines ils sont au cœur ils sont au cœur malheureusement maire yi la ñuy tëj kaso malheureusement mais parce que la plupart des des cas bu ñu koy def ba def loo ba pare maire bi day am temps waa impôt am temps waa urbanisme am temps ñu mm-hmm. ñu kay terrasse am temps yooyu moo sonal Sénégal. Mm-hmm. donc de façon globale euh, euh, li ñu wax ci Cour des comptes. Mm-hmm. c'est vrai c'est vrai et il faut rectifier. maintenant la responsabilité relève de l'État parce que suuf si. Sénégal moo ko moom. Mhm. suuf si du waa Sénégal yi fi nekk léegi ñoo ko moom. Mhm. waa Sénégal yi ëllëg ñoo ko moom. donc dañu war a faxe xoolal tey ñun par exemple Dakar fii yenn bu bëggee def yenn projet de dimension yu ngande yi foo koy def. tënkee soo bëggee def projet foo koy def amul amul suuf. Mhm. beneen question bi gën a garaaw Armel. Armel Cap-Vert gi dans cinquante ans Armel dootu fi am. et ça ça relève de l'état ça relève des collègues wax naa ko grand sëriñ Pape Diagne su ma mag la suma xarit la nee ko bàyyil sa projet bi nga wax si cimetière de du Cap Vert mhm. pour les cent prochains ans prochaines années à venir c'est ça les véritables questions de développement territorial donc la question foncière elle est importante mais mhm. Fat Abdou nga baal ma da nga mhm. question bu am solo sur la redevabilité sur la participation citoyenne xam nga candidat yi wax nañ si lu bari et j'applaudis des deux mains parce que tant que le citoyen est au cœur moi je di ok et ici malheureusement bon oh, dégg naa léegi suma xarit bi wax léegi 60 jours mais man dama doon demander ngeen yóbbu ko 100 xam nga conseil bi 100 jours lañ leen di convoqué. Mm-hmm. waaw moom mënoo di convoquer plus les citoyens que les que le con conseil pour mu am cohérence pour mu am cohérence de façon de façon globale euh, beneen bi. mooy le budget participatif. Mhm. il est temps qu'on l'institutionnalise. qu'on l'institutionnalise xam nga Porto Alegre budget participatif laa laal la c'est le conseil municipal qui vote le budget. budget recette la dépense. dépense de fonctionnement dépense d'investissement au Sénégal aucune collectivité locale naa de recette d'investissement recette d'investissement amul donc nit ñi ñu ngi wax lu leen neex. mais recette pour investir defar. Mhm. amul si benn mairie. je le dis ici te kenn du ko dindi. Mhm. kenn du ko dindi maa ngi koy wax fii kenn du ko mhm. dindi. donc dépense d' investissement yi laa bëgg a wax si budget participatif conseil bi du ko dogal à cent pour cent yenn dëkk yi comme Paris il font trente pour cent man j'avais proposé cent pour cent non cinquante pour cent pour les populations. loolu soit dit en passant mais les personnes handicapées la loi d' orientation sociale. qui fait obligation à l'État pour que mu taxawu personne handicap tout handicap lan la lan la prévoir pour les collectivités territoriales si seen wareef si personne handicapée yi personne n'en parlait c'est ça le vrai or dans la loi électorale il y a eu des avancées de taille parce que léegi pour vote bi si réforme bi passé. loolu kay duñ ci dugg moom. voilà donc pour jeexal pour jeexal mën nañ ko wax sur le budget sensible au ah, genre. Ah, ah. même aller plus loin budget sensible à l' enfance comme ni mu ko waxee defar dëkk du lenn loolu xool soxlay askan wi. Mhm. soxlay ñëpp si askan wi muy mag muy ndaw. Mhm. muy ku wér muy ku wérul. muy kuy jàng muy ku jàngul muy kuy dawal oto muy kuy garage. Mhm. muy kuy jaay. muy ñëpp muy quartier bu am doole quartier bu amul doole quartier bu yàgg quartier bu bees ñëpp nga xool soxla yi lan la et j'ai beaucoup aimé inventaire des vulnérabilités mhm. bi suñu doyen bi wax Yougo Sakho moi je mm-hmm. l'ai j'allais dire diagnostic territorial mm-hmm. c'est très important ndax loolu mooy mooy coono dëkk boo ko xamulee uh-huh. mënoo ko def c'est très important par rapport ak ak décentralisation ba tey lan nga ci xalaat monsieur Fofana ci mm-hmm. question boobu nga xam ne jëm na ci mbirum suuf euh, te collectivité territoriale yi ñoom ñoo war a appliquer cette loi du domaine national et des conflits fonciers xam nga euh, lim ci wax c'est difficile teg ci dara parce que li am solo mooy connivence bi am entre les maires et les services Euh, xëy na suñu doyen il était ville de Dakar man j'ai eu xaw ma chance la koy xaw ma ma chance laa koy j'ai eu la je me suis trouvé conseiller technique au niveau de la décentralisation en 2012 j'ai vu des choses hein, des situations yoo xamante ne nii doo ko mën wax euh, des situation compliquées te dara du ko war waral lu dul justement euh, bu ñu bu ñu asphyxier un maire qui a pris des engagements ñu asphyxier ko financièrement ba mënut a dem fenn même TVA bi ngay wax par parlons-en am na am na des structures yu nga xam ne ñoom la ñuy financer avec cette AFTVA. Euh, du ma citer des noms mais am na ay ay ay structures yu nu créé dans le secteur de la décentralisation TVA bi ñu waroon séddale. da ci am voilà salaire mairie dañ koy fay. donc structure yu nga xam ne dañuy nommer le directeur bi fay nekk à la tête c'est à la tête du mais maire bi en fonction opposition wala pouvoir la programme bi di def di def dem action. donc vous comprenez que maire boobu dañ dañ koy mettre dans une situation où dafay nekk dafay nekk euh, à la merci mm-hmm. d'énormément de choses mm-hmm. maintenant question foncière xam nga buñ ko rek wax ci mbiru jaay suuf pour dëkk man question euh, c'est l'économiste qui parle suuf dafa am solo ci économie mm. parce que aménagement du territoire mooy l'organisation physique du territoire comment on organise physiquement le territoire cette organisation physique physique boobu mooy fan la tracé war a jaar route yu mag yi fan lañ war a jaar parce que transport dafa am impact ci économie ñu ref xalaat ko tout de suite génne ko ni fii axe de transport yi fii la nekk mais aussi yan suuf ñi nga xam ne suuf la yu nga xam ne kenn waru fa dëkk boo fa dëkkee sa investissement mën na am risque ñu génne ko mooy zones yi nga xam ne c' est des zones humides les zones aquatiques les zones semi aquatiques ñu génne ko le capital écologique mooy yi nga xam ne dafa am gàncax gu fa nekk wala ay animaux yu fa nekk wala nga xam ne capital la bu dañ ko war a préserver suuf soosu ñu génne ko protéger ko ba duñ fa dëkk fi nga xam ne suuf si suufu mbay la l' zone urbaine nga xam ne production agricole boobu dafa déterminer politique industrialisation boobu ñu génne terre yooyu protéger ko mm-hmm. la question foncière est éminemment économique malheureusement ñun suuf sépp suuf bu ñu waroon a transport suuf bu ñu waroon a mbay suuf bu ñu waroon def commerce suuf bu ñu waroon def tëri fépp la ñuy dëkk. Mm-hmm. et pendant ce temps on oublie l'aménagement et puis quand bu fekkente ne les lois aménagement du territoire exemple loi d'urbanisme du fi nekk. c'est pas traduit mënuñ ko traduire benn benn plan d'urbanisme opposable au tiers mais les gens font n'importe quoi. Mm-hmm. c'est ça moo tax ñun li ñu proposé ñun mooy on veut aller vers une loi sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme non non non je parle li may wax nii ku dem <laughs> ku dem Canada ci livre bi ci livre bi <laughs> voilà ci livre bi maa ngi livre bi fi mu toll nii kay kenn sañatu fee waxu programme waxuma programme dimbali leen ma rek maa si jàppale bu <laughs> am solo li ñu wax mooy il faut qu'il y ait une jonction tey ji am na secteur yoo xam ne dañ ko dañ ko séparé aménagement ak urbanisme mais dafa lié le le schéma d'aménagement dict les plans d'urbanisme yi nekk ci différentes communes. ah Québec dañ naan yas qu'on a une règle de conformité bu région bi defaree son schéma d'aménagement tout commune yëpp dañu war a defaraat seen plan d'urbanisme pour appliquer wu. Mm-hmm. plan d'urbanisme yooyu mooy wax sax fu ñu dëkk yan type de commerce moo fu mën am dama lay jox benn exemple simple benn immigré day jël alalam alalam yëpp daal di koy investir dans l'immobilier plan d'urbanisme bi maire bi daal di ubbi ay cantines mécaniciens ci ci bor bi. mais déprécier nga valeur immobilier investissement boobu alors que loi d'urbanisme tey jii bu bu Canada par exemple day interdire yenn activité économie yi comme par exemple ay mécaniciens wala foo xam ne def bruit wala yenn bar restaurant yi nga di ko def ci zone bu nga xam ne nit ñi dañuy def investissement immobilier wala boog bu la koy autoriser garage garage fermé lay doon mm-hmm. dangay am bag kii yu ubbeeku nga dugg nga tëj nga liggéey ci biir parce que bruit bi dafay yàq investissement immobilier bi niveau boobu lañ bëgg nit ñi andi décentralisation la question foncière c'est pas uniquement mbiru jaay suuf mm-hmm. c'est l'organisation physique du territoire mm-hmm. c'est comment la ñuy defee ba économie bi nit ñi gën a dox gën a mën mm-hmm. c'est ça l'enjeu alors ci ba tey décentralisation avec les compétences transférées des collectivités locales monsieur Sakho neuf collectivités yi am nañu jàpp ne dañu ko war a élargir euh, neuf domaines excusez-moi dañu ko war a élargir ci sax tourisme ndax am na yoo xam ne seen koom dafa wàcc lool te pourtant dafa nekk ay sites ne dafa sax mbay ndax gis nañu ne dafa war a am foofu am na ñu jàpp nag ne neuf yi déjà dafa diis lool ci collectivité locale yi ban xalaat nga ci am. xam nga man li may wax damay dellusiwaat ci sama gars yi daanele rek di mooy tënk wax ji. Mhm. c'est que bu ñuy wax intelligence territoriale li moo tax ñuy wax. les vocations. le zoning. lu ci nekk la fa war a nekk et cetera mais bu leen xalaat ni Sénégal définiruñu ko de. Ah xalaat ak xam-xam. je vous assure li ñuy wax yëpp am na fi on ne l'applique pas on ne l'applique pas tey jii da ngay jox un maire xam na li mu yor di ko gérer lu ci nekk xam na la fa war nekk moo tax ma ni la charte d'occupation de l'espace public maire amul liberté fu ko neex def fa lu ko neex cantiniser dëkk bi def lu nekk fu nekk am na foo xam ne équipement collectif fa war nekk nañ ko fa bàyyi. Mhm. lu nekk mais xoolal écoles yi le pourtour des écoles. des cantines le désordre et cetera mais baal leen ma mais le désordre c' est les maires. Mhm. le désordre c' est les maires. tant que tënkuñu leen nag ci charte d' occupation de l' espace public ku mën a fay OVP wala fu ñu mën a jëlee dara wala fu ñu mbaal leen ma sax fu ñu mënee taxan dara ñu taxan ko kooku ci transparence bi la bokk redevabilité bi nag dama ci am gis bu gën a yaatu. Mhm. mooy lan. les missions de contrôle de cour des comptes les organes de contrôle de l'État ñaata demal ci mairie nga laaj kañ la fa gars yi gëj léeg-léeg dix quinze vingt ans cour des comptes jaaru fa. à Rufisque ils sont venus pendant dix-huit mois. eh. Mm. y a des communes moi je peux en donner plein yoo xam ne mosuñu fa jaar les corps de contrôle de l'État mais mais ce budget là ni ñu ko exécuté war nañ ko xool. war naa am ñu koy contrôler benn ñaareel bi la nomenclature elle est dépassée elle n'est plus adaptée soo gisee li sa waay doon wax sànq pexe yi maire yi ci def ak artifice yi su gàmmu jotee wala leneen ñu fexe bu génnee xaalis dem siyaare ji joxe fan lañ ko jëlee ci ay artifice gymnastique gymnastique boobu nag nañ ko dindi na mbir mi leer waaw na mbir mi leer nomenclature bi elle n'est plus adaptée elle est beneen bi ci topp dañuy wax affaire suuf mais il y a une patrimonialisation de l'espace public. def ko moomeel comme maire bi nag sañu ko def ci turam la ko def ci turu waayam jaru donc ce qui fait que espace public bi day dem ba day am ay boroom ci ay moomeel ci ay pexe nag toujours ay artifice donc loolu yëpp moo leen di dawloo. moo leen di fair courir donc je crois qu'il y un travail de transparence mais pour loolu il faut que ñu réorganiser naka la ñuy doxalee naka la ñuy fonctionner suñ ko defulee du ñu avancer xam nga lu ko waral parce que y a des conflits d'usage ay conflits d'usage ku ci nekk dafa am looy bëgg ak noo ko bëggee keneen ki am lu mu bëgg am noo ko bëggee ñu daje fitna am donc yooyu yëpp je crois qu'il y a besoin de mettre à jour tout cela. Mm-hmm. par par rapport aux waaw par rapport aux compétences transférées yu ñu jàpp ne dañ ko war a élargir am ñu wax ne sax neuf yi déjà dafa diis euh, ci kaw ndodd collectivité locale yi ban gis-gis nga ci am monsieur Seck. waaw man suma gis-gis dafay ah, dëkk bi nit ñi di wax sooy wër saa yu tiwo tojee dañ lay wax maire fu maire ba ne. La ville sent mauvais. Il y a des eaux usées partout. Or, l'assainissement ne fait pas partie des compétences transférées parce que c'est des dépenses onéreuses. dafa cher suñu ville bi croît démographique bi daf ñoo romb ci suñuy soxla parce que dañu wax dëkk dafa am mu nga xam ni daf ko war a defal ña fa dëkk fexe ba ndox mu ñuy naan mu sell am fa bari ndox mu baax eau de bonne qualité et en quantité mais ndox moom bu ñu ci paree war na am fu ñu ko tuur seggaat ko loolu dafa nekk faiblesse ci ñun suñu mbalit aussi dafa am problème dañuy jëlee fii rek deplacé hmm. li ñuy wax euh, not on my backyard bu ko def ci sama wet da ngay jëlee mbalit fii euh, xaar yàlla yaa ngi koy yóbbul waa Mbëbës est-ce que Mbëbës ña fa ne mbalit mi mun leen feebar est-ce que war nañu am leneen war nañu am ci commune bu ne ñu xalaat naka la ñuy def seen mbalit. ba nañ ko tuddee ordure dans certaines villes mu nekk ordure mbalit mi nekk alal am-am bu war a dellu ci ñi nga xam ne ñooy produire mbalit ah, beneen bu nga xam ni war nañ ko wax ci wàllu suuf si man damay insister sur le domaine ah, public maritime le DPM Sénégal dafa am sept cent kilomètres de côte ñu mën ko dagg ci yenn pàcc bu nga xam ni suuf la am pàcc bu am xeer am pàcc bu nga xam ni ban la am mangrove hmm. mais ci pàcc yooyu yëpp nañu fay dëkkee mën nañ ko bañ sax jiiñ maire yi ak état bi ñun citoyen yi la maa ngi koy waxtaane benn bés man leen technopole bii nga xam ne ñëpp xam nañ am ndox la ndox mi daf fay am at mbi yëpp bu ñoo xoon ni dañ koy dagg ay kër dañ koy maye rang bi dana yegg jam ñaari da dana yegg Thiès ñun ñoo gis palaasum ndox ñu koy tuddee zone humide hmm. mu am toute une loi am des conventions internationales sur les zones humides mais ñun population bi ñooy force état bi ñu def ko ay dëkkuwaay après suba mu am problème inondation ñu ne lu ci maire bi def mhm. est-ce que maire bi am na moyen dans une ville dans une région comme le Cap-Vert entouré par l'eau des trois côtés avec une nappe phréatique hyper chargée est-ce que collectivité locale bu ñàkk moyen on parlait un peu du budget entre le budget prévisionnel et le budget participatif jar ñu ñu leeral ko aussi ci li ñuy wax mm-hmm. Mm-hmm. parce que budget participatif mooy ñu woo askan wi citoyen ku na ñu ne luy sa mëbët ci wàllu mbalit luy sa mëbët ci wàllu sport mhm. luy sa mëbët ci wàllu santé ak wàllu éducation nga ni lii laa ci mëbët la ma ci bëgg a def xaalis bi ma ko xayma nii la toll loolu mooy budget participatif nga yóbbu ko conseil municipal ñu def ko nag budget prévisionnel mhm. donc yooyu dafay jaadu boroom xam-xam yi mhm. expliquer citoyen yi loolu moo tax sooy liiraat parce que ñun duñu liir nag man loolu mooy suñu drame boo nekkee ci mbir da ngay gëstu boo liiree exposé motif de la loi 2013 portant code des collectivité locales mhm. dañ lay wax ay infusion insuffisance vu l'insuffisance de telle insuffisance insuffisance mhm. ba mu nekk ñeenti yoon mhm. ñu wax la incohérence li nga xam ne ñu ngi koy def te dëppoowul ak yoon incohérence loolu dafa nekk ci exposé motif bi ñun li ñu war a def nag ci collectivité locale yi mu dëppoo ak lu war a rectifier loolu ci da ci taataan xalaatu askan wi taataan seeni stratégie mais ànd ceeg état bi parce que l'article 17 du code des collectivités locales dafa wax ni bopp moomeel yi am nañu sañ-sañu lëkkaloog état yi ci yenn yi defandoo ko mais duñu ko def. c'est ce qui est ce qui est malheureux alors euh, ce qui ce qui est malheureux monsieur monsieur Seck alors Serigne Saliou li ñuy wax ni yëpp dafa nekk ci texte yi nga xamante ne moom moo tënk xëy na doxalinu Sénégal ci domaine boo jël mais malheureusement bokkul ak li nga xam ne moom la ñuy appliqué lan mooy problème bi. waaw mais c'est un problème d'abord de volonté politique xam nga tey Sénégal boo jëlee ñu ko wax na ko léegi sa à dire domaine boo mën a jël y a eu toutes les bonnes réflexions yoo xam ne mi ngi fi mais Sénégal on a un problème d'applicabilité ñun dañoo tax domaine boo mën a jël nag muy justice muy dans l'économie muy dans le social partout on a les meilleurs textes du monde à l'époque sax sama grand Abdoulatif Coulibaly daan na ko wax mais ne Sénégal suñu seul problème mooy on n'applique jamais nous nos textes te loolu dañ koy gis plus particulièrement dans la décentralisation mais nag loolu aussi il faut quand même qu'il y ait derrière su fekkante ne y a pas une volonté politique aussi cest à aucun texte ne sera appliqué affaire foncier bi ngeen wax léegi le président Macky Sall je crois c'était en décembre euh, non septembre 2017 ou 2018 mm-hmm. am na benn conseil des ministres boo xam ne il en avait parlé d'ailleurs moom bi mu ñëwee sax il avait mis en place euh, benn comi commission pour la réforme foncière mhm. dirigée par feu le mhm. professeur Souran yàlla na ko yàlla yërëm mhm. moom mu defoon na ci liggéey bu mu ci ayib déposé mais finalement ñu jël teg ci suuf encore rentrée des cours et tribunaux sa revient encore chaque fois moom dans son discours il d'ailleurs moom sax daf ko wax mu ne Sénégal le foncier est devenu maintenant une bombe moom il en est tellement conscient que chaque lan la def pour que loolu que ça puisse cesser mhm. ba léegi gisuñu ko c'est-à-dire que aujourd'hui nit ñi les gens font tout ce qu'ils veulent avec le foncier li ci bëri tey moo tax bu ñu affaire redevabilité boobu nga doon wax léegi tey maire yu bëri suñ leen saytu qui sont avec le foncier dafa bëri. Mhm. boo demoon tey fi nekk nii à Thiès y' a un scandale foncier boo xam mara détail bu fa boo xamante nii les gens en parlent jusqu'à aujourd'hui c'est comme non non ma bàyyi Thiès parce que parce que Thiès m'intéresse au premier au premier chef <laughs> waaw parce que Thiès m'intéresse au premier chef donc waaw donc donc. c'est un exemple parmi tant d'autres donc pour dire que tout simplement <laughs> d'accord je donne exemple ailleurs waaw non non c'est pas un problème de campagne <laughs> voilà donc gis nga foncier bi tey nit ñi dañ ko def quand source d'enrichissement malheureusement enrichissement illicite et il faut falloir que li nga xamante ne moom la ñu wax barki dem au niveau de en tout cas lors de la rentrée des cours des tribunaux tamit ñu mën ko jëfee parce que mhm. souci aussi je crois que sénégalais yi ñoo ko moom mhm. li nga xam actuellement moo am nii ci la zone aéroportuaire là mhm. mais c'est un scandale parce que bu ñuy waxee ne aéroport dañ ko déplacé yow ko AIBD am na un projet bien défini boo xam moom la ñu waxoon foofu mais tey soo gisee on a l'impression que nit ñi commencé nañ ko séddoo te doo ko ci ban année ci doo xam nu mu nu mu demee. Mm-hmm. finalement ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bopp état bi wala ñi nga xam ne mm-hmm. ñoo am yenn ndombo tànk yi c' est eux qui vont bénéficier alors que en réalité dafa nekk loo xam lu ñëpp bokk la. Mm-hmm. li ñëpp bokk nag je crois que day fa war a am une utilisation publique. ba nga xam ne ku ñëw war fa mën a gis sa bopp. mais projet bi nga xam moom la laloon fii ci au niveau de la zone aéroportuaire projet boobu nax saay sama mbokk lébu yi ñoom ñi ngi réclamer seen parce que gis nañ nit ñi aussi ñu ngi commencé tong tong mbir mi mhm. ñi nga xamante ne aussi ñoom c'est des simples citoyens aussi ñoom nee nañ soo jox leen seen wàll finalement léegi lan la ñuy def voilà muy muy jafe-jafe lan nga xalaat ne moom mooy pexe bi Mouhamed euh, ci li ñu fi wax yëpp ne dañu am na fi mais mënuñu fexe ba ñu appliquer ko ah, je pense qu'il est temps Sénégal ñu def un ndëpp national mhm. te domaine boo laal rek am na ay jafe je prends un exemple mon oncle mi toog gis nañ bi muy nekk directeur général SAPCO liggéey bu mucc ayub bu mu fa liggéey euh, je ne suis pas du pouvoir mhm. mais je tiens à féliciter l'actuel directeur général de la SAPCO ndaxte bi mu ñëwee li mu njëkk jublu mooy demander ñu def benn audit ndaxte dafa ñëwoon fekk structure bi la direction général am 76 agents léegi ñu fekk fa 598 agents soo ko xoolee aussi ba léegi au niveau du ministère la fonction publique mhm. gis nañ ni que le taux de recrutement dafa nekk lu élevé ba gis nañ le président de la république mu interpellé woon le ministre en conseil des ministres pour vous dire rek ni que quel que soit aussi nit ki sa appartenance mhm. da ci am solo ñuy xool lu ñu amal solo ak lu ñu yitteel suñu réew mhm. tey képp koo xamante ni nekk nga un fonctionnaire ngay xëy di liggéey ak secteur boo munti nekk muy la pêche la santé yëpp ñaan nga yàlla balaa ngay dem à la nga mën a bénéficier wu am au moins lu ñuy wax sa kër boo xamante ni di nga ko mën a moomal sa bopp ndaxte su retraite jotee gis nañ ni que le SMIC au Sénégal wute na ak le SMIC bu nekk à l'étranger mm. fii se cinquante cinq mille francs kooku yaakaar naa ni soo ci wutee saakub ceeb teg ci diwlin suukar keeg meew bi sax dalay jafe mm-hmm. donc lu mel noonu yëpp si biir état du Sénégal ñu élargir la réflexion ñu bañ ko rek limiter. Mhm. ci mbirum foncier bi ñu boole ko ci yeneen secteurs yëpp ngir ëllëg ak si biir aussi ñun la nouvelle génération et la génération même future. ñëpp mën ci gis seen bopp. Mhm. Mhm. c'est euh, lan la ñu war a def pour peut-être am une décentralisation boo xamante ne du ñu toogati sax di wax rëq-rëq yi puisque yegg nañ ci acte trois de la décentralisation ak li nga xam ne moom la jox maire yëpp mais ci biir dafa mel ne coquille vide la qu'est-ce qu'il faut. ñeenti mbir. bi jiitu si wàllu koom ndax fa la effectivement quand le président Wade nommé euh, le défunt maire de Dakar Mamadou Diop ministre de la provincialisation moi j'écoutais avec euh, beaucoup d'attention mu ne ko je veux des provinces riches et fortes c'était la commande conceptualiser la réforme de la province moi j'étais jusqu'à Versailles ma ne ko président yow da nga ñëw 2001 nga ne provincialisation gars yu yooxu nga denc ko 2010 nga génnewaat projet bi dénk ko ministre di Diop mu bind jox la mais xamuñu contenu bi deux heures temps après suñu discussion mm-hmm. mu ne ma bu Karim ñëwee dina appliquer sama vision mais li ma si jàppoon man mooy collectivité locale riche et forte loolu nag nekkul si lenn lu dul transfert yi ñu yokk mhm. fiscalité bi boo demee Nigéria fifty fifty la vous cinq pour cent ou vingt cinq fifty les recettes fiscales de euh, du de l'État nigérien mhm. bu ñu ko dajalee genn wàll gi collectivité bi genn wàll gi euh, euh, mhm. kii état bi boo demee Cameroun yàlla fekkoom kon Vous connaissez le FECOM C'est lu FECOM qui gère à la place de l'État tout ce qui a à la fiscalité, au financement des collectivités territoriales. Une structure autonome, indépendante. foofu lañ toll donc benn yoon bi mooy côté finance ñu yokk koomu collectivité la ñaareel bi mooy ñiy liggéey moom mooy le le le cadre humain. Mhm. maire yi ñu redéfinir xamoo ñu ngi fal maire yi jox nañ maire yi tey citoyen yi nañ xam kan mooy seen maire mais ñiy ànd ak moom di liggéey ñan la. ban rapport la maire am ak adjoint bi aucun adjoint au maire mm-hmm. amul benn pouvoir bu toll ni tarfatal ay ni